ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu ak ci wéru koor bi di ñaan yalla mu boole ñu jéggal euh, ñu ngi fi ak seen mbokk al oustaz Makhtar tiam fi ci an TV fas yéene jàngante ak yéen lenn ci koor bi li ñuy fàttalante rek ay recommandation la ci wàllu koor mu mel ni koor ginnaaw bi ñu xamee ni farata la sunu borom moom moo ko santaane moo am ay mesures d'accompagnement yoo xamante ni la koy àndaaleel li nga ci dégg mooy koor waruñu ko def n'importe quoi waruñu ko defee num ñu neexee en la ñu neexee saa yu ñu neexee mu bokk ci recommandation yi nga xamante ni moom mooy koor li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qaama ramadaana imaanan wahtisaaban gufira lahu ma taqaddam min zanbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy jàngal nee na képp koo xamante ni da nga weeru koor nee na nga ànd ceeg li nga xam nga am ci lu ànd ceeg li nga xamante ni mooy imaan ak régler ci jàpp sa bopp sa bopp lépp li nga war a bàyyi xel nga bàyyi ci xel nee na sunu borom dina la jéggal say bàkkaar mu dellu ci mesure d'accompagnement yi ma doon wax ci wàllu koor waaye tamit mu am ci recommandation yoo xamante ni moom lañ bàyyi xel di ci njëkk mooy asabru moom muy muñ koor ci recommandation mooy nañu muñ muñ nag yaatu na commencé ko ci famille yi commencé ko ci dekkundo yi commencé ko ci dirigeant yi commencé ko ci sey yi commencé yi moy mu nek muñ ñaarel bi mu delu ci li nga xamanteni ni moy kersa ta moy al u le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam a dit la pudeur fait partie de la foi bu ko defé kon waxat nako ci benen hadith mu ni as sabru wala alxayaa nizam, nizaamul iman isa lam tastaxi fasna ma chita yonent bi nee na boo demee ba ñàkk kersa nee na bu ko defee dañ lay jàppee koo xamante ni ndoxu bëtam dafa jeex defal lu a neex marginalisé naa la man yonent bi kon ci recommandation yi am kersa ci la bokk am kersa mi ngi bokk ci mooy boo demee ba am ngànt manoo woor nga respecté ñi woor bañ a def yenn yi nga xamante ni yu jaaduwul la seen kanam waaye tamit li nga xamante ni mooy bañ yàq te mooy le juste xam nga bokk na ci recommandation yi ba tey mooy bañ a yàq bari nañ ñoo xamante ni ci koor dañuy def de plus loo xamante ni daaw ñu ko doon def ñenn ci ngistal lañ ko teg ñenn ñi bëgg ku leen gis la ñenn ñu ni pour ñu ni ñoo diw nangam wala nangam rek tey sunu borom daf ñu santoon ni li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy maandu bi mooy alwasatiya mooy le juste milieu te mooy bu kenn yàq inna allaha laa yuhibbul musrifin ñoo na ci bal alquran bokk na ci li nga xamante ni moom mooy recommandation yi mooy almawadda mooy cofeel mooy ñu soppante seen biir gis na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jugee Màkka dem Médine dafa am lu ñuy tuddee al muaaxaat mooy mooy mooy seexale bi mu doon seexale jullit ñi fa la fraternité commencé fa la union commencé fa la entente commencé même jumelage yi ñuy def suñu école yi sax loolu fa la commencé mu bokk ci recommandation yi waaye am tamit mu am lu ñuy tuddee ar rahma muy yërmande ñu yërëmante seen suñu biir mooy ñi am doole nañu yërëm ñi nga xamante ni ñoom ñoo amul doole waaye tamit ba tey li ñuy tuddee al ixlaas ak al xushu ñaari baatu yu jege la ta bokkuñu al ixlaas mooy sellal sunu borom waxoon na ni wa maa umiru illa li yaabudullaa muxlisina lahu diin kon jaamu bi ñu xam ne sunu borom santaane na ko mais dafa am loo xamante ne entre parenthèse bu ñëwul du mën a dem mooy al ixlaas mooy balaa ngay ñëw di jaamu ci yàlla ci diggante toilette bi ci diggante waaj bi ci diggante yi ngay sol ci diggante jàmm jàpp bi yooyu yëpp mu ànd ak li nga xamante ni mooy ixlaas waaye boo ñëwee ba koy def nag mu ànd ak li nga xamante ni mooy alxushu muy toroxlu ba tey bokk na ci recommandation yi ba tey tamit mooy lu ñuy tudde alafu ñi ngi leen koy nettali ci sa zeynil abidin wal kaazimina al ghayza wal afina an nas inna allah yuhibbul muhsinin te moy diggante serigne ba ak taaliba ba moy serigne ba bako talib taaliba bi di sotil satala pour mu jàpp satala bi wad dal ci kaw bopp bi bopp bi toj nga xamanteni amon na katan amon nako meuna gañ a nako torturer rek yàlla wacce ay bi niko yàlla bëgg na kuy wan mersa bu mere kon ñu ngi ciy lancé appel ci foofu ni aaye boobu ñun dirigeants yi ñun acteurs yi ñun responsable ñun njiit nañuy jéggale ba mu ne ko baal naa la ba pare yàlla ne ko wala afina anin naas yàlla bëgg na kuy jéllale xam nga nit mën nga ko baal ba pare wan na sa merte doo ko jéggal kon ngay jéggale tey jéllale waaye bi ci gëm am solo mu ne ko inna allah yuhibbul muhsinin mu ne ko al ana talaqtu saraaxak boo ko defee yooyu bokk na ci recommandation yoo xamante ne yu am solo la moo tax ci biir recommandation yi nga koy xamee ngay lu tax mu baax mooy lépp loo def rek dafay nekk cent pour cent parce que a daxala chehru ramadan futihat abwaabul janna dañuy tijji buntu àjjana yi kon nga xam ne weeru koor amul lu bon weer wi amul lu ci bon kon lépp loo def rek dañ koy yokk dañ koy gën a yaatal dañ koy gën a ful bu ko defee yooyu bokk na ci recommandation yi mais ñu gën a yaatal xol yi am li nga xamante ni moom mooy cœur ouvert yaatu na nag mais loolu mooy li nga xamante ni moom lañ tënkoon fii ci Hann TV fii ci li nga xamante ni mooy Zikra fi Ramadan ak oustaz Makhtar Thiam ak fàttalante recommandation yi nga xamante ni moo dellu ci wàllu koor di leen jéggulu di leen baalu àq aqulu xawli haza wa astaghfirullah li wa lakum jamian wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh